je crois que tey match bu neex nañu football ak Tëngéej Tëngéej équipe bu baax la qualité parce que dañ def recrutement baax ñun une équipe c'est une bonne équipe qui va jouer les premiers rounds. donc match bi tey bi ko abordé dañ ko abordé comme mentalité équipe bu jouer à domicile ñun à domicile dañuy xoj équipe bi dañ koy étouffer matt ko jël ballon yi agressé ko dem ci kanam du ñoru bal bi dañuy def combat récupérer ballon yi du ñoree ballon bi dañuy imposer lu ñu bëgg a def commencé ci kanam jaar ci côté yi finir fort devant ñu ñu projeté wu si kanam tey Tëngéej bu ñu yëgee ne ñoom dañuy ñëw dal suñu kaw def pressing d'attaque ñun dañu àndi beneen mesure mooy li Allemagne di wax gegen pressing contre pressing donc c'est des situations yoo xam ne ñoom bu ñu ñëwee en nombre si ginnaaw derrière il y a de la place et puis ñun quand on demande dans le dos mun nañ leen poignarder donc ce qu'on a fait en premier mi-temps mais amuñu réussite parce que am nañ fa benn ñaar benn ñaar ñetti occasion duñ ko dugaloon peut-être lu métti métti mënoon nañ génn ci match bi ak match mais bon dugaluñu match machine des duels au sommet ça se joue sur des détails ay détails dañ ko joue. donc nous avons ñoom ñu réaliste je crois que boobu lañ fa am sinon du ñu dugalee benn c'est man sama équipe la première fois que nous donc xale yi day donc ils ont eu un peu peur ñàkk bi moo ils ont un peu de jouer après mais loolu yëpp un peu koy remédier parce que quand on veut jouer un championnat il faut être préparé Nous avons le le 2-0 de remonter l'équipe de 3-2 il ne faut pas dire que chaque fois. Il faut être prêt à jouer toutes les situations. Donc sur ce plan, nous devons aller mentalement. À 1-0, on va nous 95 minutes à 1. On va gagner le match. Donc nous devons travailler dans ce sens. faut améliorer, il y a des trucs qui sont aussi. Il faut améliorer.